ñu ñëw ci Modou Anta ak ki nga xamante ne mooy Diène Kaïré combat la boo xamante ne ñaari xale lañ kii ma nga dëkk Thiès kii ma nga dëkk euh, Soumbédioune ñoom ñaar ñu war a laale combat boobu loo ci gis. waaw Modou avril ba tey. Modou Anta Diène Kaïré ay ñaari xale lañ yu nekk ci seen yoon ci dem mais li ma si gis man laa wax li ma si gis gis naa deftu tu Modou waaw dafa tam instant bi bii moom ñoom ñaari gëm naa jéngeere daan ko de. <laughs> sëñ Mor yaa ngi jël engagement boo xamante ni xale yi moom ci guddi gi lañuy dem vaar indi say kii dugal la TikTok kon pare nga pour dem di nga dem TikTok de. loolu am problème man bàyyi ji lii. Hmm. kuy xaar pour mu vaar ah di nga xam dëggoon li ma waxoon ndax man lépp lu ma wax dina ko assumer te lépp lu ma wax mën na laa indil firnde ndax ñun làmmatuwuñ ñuy gis gis-gis bu wér. donc bis boobu ñëwee boo ñu woowaatee ñu lii la ak lii ak lii ak xam li ma la wax mais man du ma sëriñ soom te dañu làmbatu ko soo la non cest man lépp lu may dugg si de moom jeex tàkk gëm-gëm boobu laa am ku ma ànd li àdduna yëpp dina xam ne man diw àndal te ragal picc day xam ne wërsëg asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum adduna Pape Fall Waly Balago Seck maa leen di wax ne nee naa ah, rek mën nga fex leeral